Tonnerre de Guiro Seras ñoom ñaar ngi ci diggi géew bi baa ngi wax ak ñoom jox ko waaw arbitre baa ngi laaj ay Giro am na lu mu ñaan tofle ko suufle ci kanam gi Giro Seras Tonnerre 2 wala boog Tonnerre Giro moo ngeem lu bële moo nu woon ginnaaw Tonnerre la nu jàkkaar lool Tonnerre ngeem moo ngeem lu bees li takk morso yi ci bopp bi munu cee ñàkk Tonnerre léegi mënoo dox ci kaw Giro Giro Seras Tonnerre Tonnerre wàcc na Tonnerre Seras Giro Seras Tonnerre Giro Tonnerre mépp na léegi Giro ngay xool Giro Seras Tonnerre ñu ngay lewaatoo Giro écurie dóor dóoraat Tonnerre cey ji làmb journée Fallou Ndiaye njiital Ndiaye production dimanche 29 mai les 20h13 combat bi mënut yomb Tonnerre dafa am ci lu mu jóge Guiro Seras am mu def Tonnerre làmb ji mën na ko delloo ci biir làmb Tonnerre bëre njiin bu yoof Tonnerre bëre naag Youssou Ndour loolu rek doy waaye Guiro Seras mbokk yi bëre naa Boy Dakar bëre naa Nokia loolu rek doy na waaye mbokk yi loolu doyul Fallou Ndiaye andil ñu ki nga xamante ni nii moo dox ci diggante Tonnerre ak Guiro Seras ndax booy xool kii di tonnerre na parcelle daan fa ki nga xamante ni mooy Boy Diop bu école de lutte te Birahim Ndiaye Giro Seras ba bara jonn daan fa ki nga xamante ni mooy Nokia ñoom ñaar lamb boole na leen waaye ñu ngay lewaatoo calcul bi bari mu waaye mënu cee ñàkk tonnerre mépp na waaye demul tonnerre mépp na waaye demul calcul bi mënu tee ñàkk. Duro teg na pied gauche. Tonna teg pied droite. Duro cokkaas na cokkaas na léegi. Habib bi àtte na waat leen ci diggi ñoom. nee leen lewaatoo bi dafa yàgg kon bëre leen arbitre bi su lewaat na Guiro Seras Tonnerre demee wet waaye saakuy fekkiwul kenn Guiro Seras Tonnerre ñoo ngi lewaatoo congo amagul dooranteegunu jàppanteegunu Guiro Seras Tonnerre wala boog Tonnerre de bu Colobane mbooloo Guiro Seras moo nga wane parcelle dóor dóoraat ca sos dañuy xeex wala dañuy bëre léegi mu leer Guiro cokkaas na léegi Guiro Seras Bio cokaas na léegi. Bio Séas Tonnerre. dafa bëgg xeex. wala dafa bëgg a bëre. suuf si. Bio am na benn avertissement. ku ci nekk am na benn avertissement. làmb ji leen. yàgg yàgg dana. ñoo ngay demee wet. Guiro Seras Tonnerre. Tonnerre tey dafa mel ni dafa déglu Seras Tonnerre. jàppante nañu loxo ba mu neex bàyyiwaat <laughs> ku ci nekk yaa ngi peese sa morom du xool lan moo ci moom bàyyi leen nu bëre. Guiro Seras Tonnerre Guiro bëgg na léegi cokkaas na léegi Guiro na ko Guiro dóor na ko Jula door na ko léegi waaye Tonnerre rek ne tekki rek Tonnerre dañu koo yab Tonnerre tey juum war ko waaye Jula da koo bëgg a jumloo est-ce que dina ko nangoom déet Jula seeraas Tonnerre Jula seeraas Tonnerre doxaat na ko door na ko ñooy xeex deux séances dañuy xeex di bëree <laughs> waaw dama bëgg lii su jàmm xëyul bu mu fa gont doo fay dëkk dóor la woon waaye fayoo ko tas Guiro Seras Guiro Seras Guiro Seras Tonnerre Guiro Seras Tonnerre daa mel ni xeex bi enjeu wu ko Guiro Seras Tonnerre dégg nga ñoo ngay xeex Guiro Seras Tonnerre Guiro Seras Guiro daa mel ni ni muy bëree baax na arrangé na ko Guiro Seras Tonnerre Guiro dóor mu mën naa am de. Giro du ko dóor mu daan nga foofu. ñoo ngi lewaatoo jege antoo nanu ku bëgg a kan moo bëgg a jébalu. ku bëgg a jébalu ci ñoom ñaar lan laay gis ni Guiro Seras Tonnerre balancement de bras Giro Seras Tonnerre Tonnerre da koo bëgg a jàpp Tonnerre da koo bëgg a jàpp jàpp lan mooy xew Giro Seras Tonnerre Tonnerre xeex bi arrangé ko daw na jàpp da koo bëgg a zongale Giro Seras Tonnerre jàpp nañu Giro Seras Tonnerre Giro jàpp na da koo bëgg dana ko génnam déet Guiro saa ku nekk saxabal ba da koy daan waaw waaw Guiro daan na Tonnerre laa takk na ko ba bi Guiro daan na ko Guiro saa